vers le ciel, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu t'es moves the lever et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos au son des cloches des églises. Ta distribution cloche des églises, ta distribution de surprises. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets familiers n'oublie pas mon petit. Mon qui du yi euh, di waxoon nañ leen ko euh, tey en cadeau pour un sourire dafa décentralisé fan la ñu ñëw ñu ne Thiès gaay mbokk yi dañuy saa ne di kontaan di jox ay cadeau ay tout tànk parce que nag la ñu koy weccoo saa su ne wax nañ leen ko. muy lan muy ay cadeau ñu sourire ñu bëgg nañ ci Thierno gërëm naa la bu baax a baax ci euh, li ngi ma indil. mbokk yi ma ànd nag ak équipe bu mag muy équipe bu RTS2 bi nga xamante ne bi ñoom ñoo initier projet bu mag bi de fas yéene nag bëggal. bépp doomu Sénégal Thiès la ñu commencé waaye mbokk yi xam ngeen ne ñu dem fu sore sore wa ana sax man sama xalé bi nga xam ne euh, mom la wara mom la wara euh, jox cadeau bi wa nañ ko tàccu bo ah, yow tur bi naka la góora góora na nga def bàyyi yaa ci jàmm alhamdulilah soxna si waaw na nga def maa ngi yow tur bi naka la ah yow lan nga ci

vélo bi nga xamantene bi lu am jëriñ la parce que li tax mbokk yi ñuy am ay choix yi ñuy def parce que xale bi le fa muy jógee la ñu sunu chef de protocole bi wax Evelyne ak fa muy jàngee dafa sori. RTS de choisir nak indil ko vélo bi gën ko ko yombal ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm bu baax baax. ñu ngi lay fay bu baaxa baax ya xam. Mm-hmm. comme ni nga waxe am um, Thiès ngeen doré li nga xamé né moy 3 troisième saison un cadeau pour un sourire. euh buñ né Thiès nak mm-hmm. ñetti département la mu di mm-hmm. Thiès département. département Tivaouane département Mbour. Euh, ci biir région de Thiès yëpp muy ñetti département yi ngeen tàmbalee ko Tivaouane. tan quartier euh, Jeddah. Euh, kaw fi ci Tivaouane mu nekk nak lu am solo. dëkku Seydi Hadj Malick Sy. mbir mi eh, di wane rek barke mhm. ah ñu dooree ci bisimilahi rahmaani rahim may ñaan rek yàlla def ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin mhm. eh, kon nag boo leen tànnee am xale bi mhm. nekk na lu am solo ndax démb dama dem eh, ci CRD bu mujj waajal gàmmu piir bi may ñibbi si sama yaram dafa daw ndax ay heures yi jëm quatre heures la ñu ñibbi ñu xool xale yi tout le long de l'artère bu Tiwaawan ak ah, dëkk yëpp ñu ngi taxaw wacc nañ 15 heures bëgg ñibbi. Mhm. amuñu lu ñu ñi di dox. ay kilomètres et des kilomètres. pour mhm. jangi mhm. sous le chaud soleil naaj bu tàng. loolu courage rek. mooy may nit mu yeggali. Euh, li mu bëgg. waaw lii nag bu ñëwee kon dafay nekk lu am solo. très très bien euh, euh, kon nag ñun loolu tamit dañu ci dañu ciy kontaan wax bi rafet na ñu gis nag nekk yéen tamit du côté de de de RTS Thiès yéen a ngi doxal ba mu baax. waaw ñu ngi ah, ah. doxal ba mu baax. très très bien <laughs> ñu ngi doxal ba mu baax dañuy contane jox la jox la vélo justement euh, pour que nga remettre ko euh, sunu bébé bi nga xamanteni bi dana dana war am njëriñ lool. ci waaw dana am njëriñ lool. Ah, ah. yow nous ah, waaw RTS RTS 2 à travers direction générale yëpp un cadeau pour un sourire. ñoo lay jox euh, li nga xam ne moom mooy velo bi ma yaakaar na dina doon lu am solo si yow dootoo doxati naaj bu tàng. Mhm. ah di nga dawal sa vélo da ngay ree nag parce que ñoo ne. <laughs> waaw booy dawal nag nga def daal ci tali bi ah ak oto yi affaire yooyu noonu di bàyyi xel bu baax. tout à fait euh, en tout cas euh, kontaan nañu lool yaay nag ñu bàyyi la nga sànni nga sànni ci tuuti kàddu. parce que nag vraiment dañuy wër dëkk bi euh, di jox cadeau ñi nga xamante ne bi soxla nañu ko parce que ku ne xam ne Noël léegi mu jot. moo tax itamit ñu bugg rek xale yëpp bëgg waa RTS bi madame. maa ngi leen di nuyu di leen sant seen télé bii yàlla na doon fukki tele di sant sama papa ji. dal na yàlla guddal fanam ndax ñun suñu papa dafa génn àddina bàyyi ñu góor gi góor gi jàppale nañu trop jooyu ñu jooyu ñu bàyyi ndax moom dama koy ñaanal yàlla na yàlla guddal aw fan. amiin amiin ngeen bëgg a egg. Mhm. yàlla na leen fa yàlla egg. amiin amiin ci barke Serigne Babacar Sy. sama xol sedd na ci yéen trop yàlla kontaan. kon nag di ngeen ko gisee yaakaar naa ne bu xale kontaanee RTS 2 kontaan. waaye tamit àddina bi yëpp kontaan. mbokk ñoo ngi gërëm nag ñi nga xamante ne bii wax dëgg yàlla suñu àndul woon ak ñun defe naa ne duñ ko mën a def ñu ngi gërëm waa direction générale de la RTS mm. euh, monsieur Racine Talla ak équipe ba mu àndal yëpp waaye nag di gërëm bu baax a baax a baax ki nga xamantene bi mom moy euh, monsieur Omar Ba ak staff ba mu andal euh, fadjé ak ñëpp parce que nak dañuy ciy xous ba sori parce que nak xalé yi ñoo ñu ñor mbokk yi duñu faté wa service commercial bi nga xamantene bi ren nak euh, ñom ñoo accompagner en tout cas ñi ngi sant di gëreum ñi ngi fi ci bir tiwawon ci quartier Jidda comme niñ ko waxé suñu dom ji légui nak dana mëna dawal bu baaxa baax dem jangi, ñew ci jamm jàng bi mëna gëna yok kon nak dañuy ñaan sa su ne xalé yëpp yalla barkeel leen di la ñaanal barké di la ñaanal nga dem ba nek ku kawé kawe kawe